fu bari fii ci Sénégal rawatina itam ci biti réew bari lool ay xam-xam yoo xamante ne daal dina ko am ñu gis ne ne Aminata Touré ci atub 98 moom daal dina nekk nag chef bu division marketing ak communication bu Sotrac jamono ji nekk dakaar Dem Dikk ñu daal di koy nag dàq foofu mu nekkoon ginnaaw nag ba mu intégré woon ci syndicat bu liggéeykat yi mu nekk nag jigéen boo xamante ne itam ku xam ay droit wam la te itam mën revendiquer lool ca la nga xamante ne moom lay yëngu jëm ci wàllu ak ak yelleefu doomu aadama mu nekk jigéen gu njëkk nekk directrice de campagne ci élection présidentielle ci 1993 dirigé woon campagne bu Landing Savané ci 2000 nag bi maître Abdoulaye Wade nekkee président ci la nag Landing Savané décidé woon daal di ànd ak moom waaye nag proposé ko poste ministre ci gouvernement bu maître Abdoulaye Wade ci la daal bañ moom mii di Mimi Touré daal di naa nekk at mu occupé woon poste de directrice des droits humains ci 2011 googee nag la daa dee ñëw duggaat ci langue politique bi fii ci Sénégal ànd ak le président de la République Macky Sall nekkoon directrice de campagne am ci atum 2012 2012 jàpp 2013 mu daal di nekk ministre de la justice 2013 2014 mu nekk premier ministre mu daal nekkoon présidente bu conseil économique social et environnemental mu jiite post yu baree bari moom mii di Aminata Touré ci fin wu 2022 la daal di jugee ci parti bii di AP APR daal di taxawal nag li nga xamante ne moom moo di mouvement pour l'intégrité le mérite ak indépendance di Mimi 2024 waaye itam annoncé li leen di candidature am ci élection présidentielle yu 2024 yi ñu dëgmal moom mii di Aminata Touré mooy doon ganub nee na Aïcha Ba ci tribune présidentielle merci Fatima merci à vous alors euh, euh, casquette yi bëri nañu mais tey euh, bu candidate bi moo ñu intéressé parce que chers téléspectateurs ñu ngi peut-être en face de ku nar a jiite le Sénégal en 2024 mu nekk une première pour le Sénégal ñu ngi lay nuyu madame la présidente. maa ngi lay fay soxna Nene Aïcha di am kontante waxtaan ak mm-hmm. en tout cas de vous avoir sur ce plateau. dañuy démarrer parce que normalement comme ni ñu koy defee saa su nekk on parle. Euh, programme et euh, on sait que programme yi macha allah candidat yi également macha allah ce qui nous intéresse on va démarrer par l'actualité gis nañ ne que euh, deux plus de deux cent soixante euh, candidats ñoom ñoo demoon retirer seen fiche de parrainage mm-hmm. bi ñu déposé fële ci conseil constitutionnel amaana on parle de soixante-dix candidats entre autres ñu gis déjà gab boobule yëpp am comment l'analyser déjà et aussi bi yoon mu am comme bi passé aussi mu am coppite par rapport ak tirage yi ñuy def mu nekk loo xamante ne peut-être dañ la bàyyi nga analyser ko noo ko gisee. Euh, waaw euh, li mu wane mooy euh, vraiment mënoon nañ ko doxalee neneen parce que. Mhm. deux cent soixante mënoon nañoo am sax million millions de candidats. parce que li ñu doon li ñu doon laajte rek mooy nga ñëw ak sa carte d'identité pour certains. Mhm. pour d'autres non. puisque gis nañ joxe pour certains candidats nga ñëw ñu jox la fiche wi alors que waroon nañoo mën a ne bon lii mooy constitution dossier bi ku ne na indi sa caution. ensuite nga ñëw jël si sa fiche mais nama jàpp ne lii ma xalaat euh, ñiy organiser élection yi xam nañu ko parce que ku ne am nga sa xelu bopp mhm. mais man dama gis ne y avait peut-être une volonté de confusion mais à quelle euh, fin ah pour multiplier les doublons <laughs> voilà il y avait deux cent soixante personnes ak ay fiches de parrainage au niveau des Sénégalais indi confusion ak yu ni mel mhm. donc loolu lu ñu war a rectifier la sans sans sans délai euh, deux cent soixante yi mën nañ jël mais <laughs> am na ci ko am ne kii bi mu demee di jël ñu ne non mais bon donc euh, mhm. on en est arrivé à ce nombre là Euh, xam naa ne euh, voilà euh, lu ñuy lu ñuy war xoolaat la bu baax a baax. d'accord parce que état amoon na possibilité dès le début revoir at certaines choses pour ñu bañ a yegg foofu. parce que ñoom ñoo yore quand même tout ce qui est organisation. mais il aurait suffi de dire ñu ñi bëgg a nekk candidat nañu di seen caution ensuite ñu ñëw jël seen fiche c'était plus simple on aurait naruñu woon a am voilà. <laughs> alors vous avez parlé du cas Ousmane Sonko parce que moom moo dem mandataire am dem di récupérer fiche de parrainage ñu bañ ko ko jox. Mhm. Euh, ñu bëri enfin la population ñenn ci ñoom jàpp ne que euh, dañoo bëgg écarter un potentiel candidat et pour ça on utilise la justice wala l'administration pour écarter un potentiel candidat. lan nga ci xalaat. oui mais wax naa ko surtout que dañu am ñaari décision de justice juge Ziguinchor ne nañ ko jox fiche am juge Dakar ko jox fiche am président euh, Sénat. Mm-hmm. dañuy fàtte ne kooku it magistrat la. Mm-hmm. <laughs> Doudou Ndir ne nañ ko jox fiche kon kay administration la ca waroon topp mooy ñu jox ko fiche am parce que administration mooy état état mooy indi ay loi bu état bi du respecter décision de justice kon ku koy respecter loolu état bu ñu nee état de droit ñaari mooy li tax tubaab bi taqale leen du par hasard ah. Mm-hmm. c'est état boo xam ne dañuy respecter droit droit nag mooy li juge wax. Euh, wax ko ñoo ñaari juge yu bokkul wax ko président wu Sénat wax ko kon kay kooku war nañ ko jox euh, fiche am d'autant plus que sénégalais bu jóg ñu jox la fiche ba muy deux cent soixante hmm. voilà donc euh, loolu c'est clair que suñu administration bi war nañu taxaw au-dessus administration ñëpp nga fi nekkal bu décision amee de justice voilà ñu appliquer ko c'est l'occasion bi nga jox aussi pour ma wax ak juge conseil constitutionnel yi. justement. <laughs> parce que ay magistrats la ñu. vous pensez ñu toll daanaka sooru démocratie mu ngi ci seen loxo aussi euh, ñu leen di kañ pour que ñu def droit et rien que le droit kenn bañ leen a influence kenn bu mu doon président bu mu doon keneen ñu def li nga xam ne moo méngoo. ak vous pensez que c'est possible ñu influencer les sept sages. ah wii mais euh, voilà mais dañ leen di dañ leen di dañ leen di kañ ba noppi dànkaafu leen aussi parce que euh, démocratie am na fu muy toll euh, dafa am ñu ko war a taxawu fi ñu toll ñoom démocratie sénégalaise ñoom ñoo ko war a taxawu fexe ba benn euh, voilà sikki sàkk bu méngoowul ak yoon euh, ñu indi ko wala nangu ko kooku euh, vraiment sénégal yëpp <laughs> ñu ngi am les yeux braqués ci ñoom ñoo am yaakaar ne nag danañu mate li nga xam ne euh, moom la ñu leen sant euh, c'est pas pour rien que ñu tuddee leen les sages voilà kon nañu fexe ba droit rien que le droit ñu respecté ko bu ñaari juge waxee ba ci président Sénat euh, voilà ñoom it bu see ci seen table ñu wax droit bañ aussi am benn lu ñuy laam-laamee ci dossier yoo xam ne jaar na yoon loolu mooy li nga xam ne mooy suma message bi ma leen di jox di am yaakaar man ak voilà tous les Sénégalais mm-hmm. que dinañ incarner et représenter le droit alors euh, ça nous permettra un peu de parler de justice ak réforme yu ñu mën a xaar hmm. euh, ci ci justice parce que sénégalais yàgg nañu quand même am perception de de la justice euh, et ça je pense que témoin nga ci hmm. euh, yàgg nañu wax ni que le président de la république dafay utiliser justice pour écarter de potentiels candidats que ça hmm. soit Khalifa Babacar Sall ou Karim Wade c'était le même cas aujourd'hui Ousmane Sonko qu'est-ce qu'on peut attendre de vous euh, soo ñëwee pour réformer justement cette justice sénégalais yi mën a am perception justice bu baax. xam nga loolu dafa am solo parce que euh, nit ñi mën nañoo muñ lu ne waaye injustice la nit mënu la muñ. Euh, moo tax souvent may revenir sur euh, <laughs> d'ailleurs industrie bi nga xam ne man dama ko vivre assemblée nationale fa ñuy voté loi yi mm. euh, ñu indi fa loo xam ne méngoowul ak loi dàq un député moi de l'assemblée nationale da nga koy vivre comme une injustice bon imaginons nag les milliers et milliers de sénégalais yuy vivre seeni injustice wala ba ci Ousmane Sonko wala ba ci keneen mm-hmm. li ma jàpp mooy mm-hmm. tant que président de la république mooy nommé procureur di nommé juge situation yi la ñuy am ndax wolof nee na ku ëmb sa sànqal ëmb sa kersa. Mhm. il faut que ñu réformer conseil supérieur de la magistrature man déjà dama jàpp ne dañ ko war a ubbi. bu ko defee euh, secteur privé war na cee bokk ak syndicat fi mu ne nii lii conflit du travail ca taabalu juge du travail yi kenn xamul lu mu toll. Mhm. Euh, soxna yi problème yi ñuy am ci wàllu droit euh, ci wàllu pension alimentaire ak yu ni ci wàllu divorce ci wàllu violence. war nañ am ñu leen fa représenté jeunes yi aussi war nañ am ñu leen fa représenté ak borom xam-xam yi aussi ci wàllu droit donc ñu yaatal conseil supérieur de la magistrature ca biir ñu am fa benn comité autonome maanaam comité boo xam ne kenn du ko jox ay digal ñooñ ñooy nommé magistrat ñoo leen di changer poste ci kaw li yoon wax ak ci mérito ak ci ñi nga xam ne ñoo ñoo seet aussi parce que yooy yëpp aussi dañ ko ci dañ ko ciy xool aussi mm-hmm. bu ko defee bu ñu jëlee décision yóbbul président de la république moom contrôle de qualité lay def maanaam seet ndax est-ce que par par loo amul est-ce que amuñ ku ñu faral est-ce que diw day ah non non kii moom euh, am na lu ñu ko fi jiiñoon ci wàllu corruption mënu cee bokk ak yu ni mel dal di tant que loolu amut situation yi euh, ngay am parce que juge bi walla procureur bi. danaan waaw mais bon comme président moo may nommé xëy na mën nañ maa déplacé xëy na sama poste bi nga xam ne bëgg naa ko voilà su ma deful li ministre bi wax ñu jëlee ma fi mais bu fekkee ne yow xam nga ne décision boo jël du am conséquence ci sa carrière parce que du foofa du ministre bi wala président bi mooy décider euh, ci fu ñu lay affecté bu boobaa danañu commencé tegaat justice bi ci yoon kooku mooy réforme fondamentale bi nga xam ne mhm. euh, danaa ko indi beneen réforme bi aussi mhm. non du sax lu ñuy yokk le comité de l'éthique de la justice maanaam comité boo xam ne mooy saytu wàllu éthique ci biir justice dafa am solo parce que biir justice nag lu bare da cee xew ah. <laughs> man ancien garde des Sceaux la ah, ah oui bu bokkul ak sax affaire politique yi ba voilà bëri na ci ay yoo xam ne yii lu ñu war a seetaat la voilà comme dans toutes les professions ah, ba ci mën ba ci <laughs> ba ci kelay tabaxal aussi ci biir magistrat yi euh, du ñëppay doxal yoon. fam yu xew ci suuf. voilà xew ci suuf donc il faut que nit ki bu fekkee da ngaa dem. ñu attale mu wër la nekk lii ñu la atte jaarul yoon benn yoon mën ngaa saisir comité d'éthique bi wala nga am connaissance su ne lii daal gera moo tax décision bi am corruption moo tax décision bi am nga mën a saisir euh, comité éthique boobu euh, ñoom tamit ñu mën a def euh, seen enquête seet Euh, voilà lana xew ca dossier ba ñaar ñooñu daal. Mhm. defe naa ne bëgg naa ñu ñu ñu ko indi mais mais répondre à ceux qui pensent que vous avez quand même été au cœur de l'État nekkoon garde des Sceaux yaa ngi koy pourquoi euh, réforme yooyu la peut-être euh, envisagé wu ñu ko woon wala commencé ngeen ko qu'est-ce qui s'est passé parce que amoo les pleins pouvoirs mën a def yenn réformes yi pourquoi attendre d'être président pour le faire et ne pas avoir eu euh, à proposer justement tout cela. président de la république ak ministre du benn. ça n'a rien à voir oui bien sûr. <laughs> mais des propositions oui bien da ngay président bi bëggoon dañ koy teg fële te def naa samay proposition ca fa ma ko war a defee. vous avez eu à faire ces propositions. bien sûr mais du la ñu fal euh, man la nga xam ne lañ ma dénkoon. dama ko def ci suma euh, intime conviction ak suma engagement benn regret. dama ci fier sax am na ci liggéey yoo xam ne dama ci am fierté sama contribution mais changement yi nga xam ne moom laa bëgg a def COP ak président de la république moo ko mën a def moo tax it ñu aussi euh, jàpp ne war nañoo euh, mën a doon candidat pour indi wala euh, Sénégal ci niveau boobu. parce que justice fondamentalement mooy problème bi nga xam ne moom la Sénégalais yi. Mm-hmm. booy seet di ñaxtu voilà mu féete boor. ah oui influencé par. la politique ak ak yu ni mel donc loolu Euh, vraiment doon na loo xam ne lii dinaa ci indi en tout cas su ma naa ci indi coppite boo am solo di ci waxtaan nag ak tout le monde. Mhm. les les voilà les euh, les justiciables. ñoom mooy yow mooy man on est tous des justiciables ak acteurs yi nga xam ne ñoo seq justice. alors j'ai eu beaucoup de candidats euh, des fois ñu ñu nekk ci ci nguur gi comme ni ngi ci nekkee woon et c'est la c'est la même réponse par rapport ak yenn yi parce que soo leen waxee ne que comptable nga ci bilan au président de la République euh, Macky Sall. ils sont d'accord justement mais dañ la naan ne que y a eu des propositions yoo xamante ne def nañ ko mais euh, ça n'a pas été accepté par le président de la République soo toogee est-ce que loolu dina changer déjà alors man suma bopp su ma mhm. dellu si waatee ci liñ ma dénk dans l'exécutif j'étais mhm. ministre de la justice wax naa li ma ci liggéey dama ko liggéey ci sama aqulaahu taala am ci fierté nag parce que nag la ma ca waroon def def naa ko ti ensuite j'ai été la ma mhm. waroon def def naa ko ci euh, ma ne yàq naa fa dara aussi <laughs> yàqu ma fa kenn toppewu ma fa xaalis defe naa ne la ma mënoon a avancé loo avancé loo naa ko voilà nañ ma fi ay ati at <laughs> voilà mais euh, amul amul amul problème euh, ci régime présidentiel la ñu nekk. ci régime hyper présidentiel la ñu nekk. kooku aussi dina ci indi ay coppite. justement parce que président bi. mooy nommé aux fonctions civiles et militaires. Ah, président Abdoulaye Wade xam naa doo doon tooñ naan su ma neexee nommé ku ma neex. voilà am na ci profession bu mu waxoon. ñu ne ko non loolu nekk mais booy xool bu dee ci loi bi rek mën na ko. mooy chef suprême des armées mm-hmm. mooy ordonnateur principal des dépenses mooy naan yóbbul budget bi fii milliard bi yóbbu ko fale et cetera euh, waaw loolu euh, il faut ñu changer ko il faut ñu indi ay garde-fous équilibré waat pouvoir président parce que day dem ba pouvoir bi moom ëpp la doole ndax boo yegsee première année deuxième année troisième année voilà yaa ngi fraîchement opposant da ngay bëgg a changer et cetera ña la wër entourage beeg njaboot gi naan la non fii yow la fi yàlla teg yow bon comme ki nga remplacé woon yàlla ko fi tegoon aussi mais loolu dañ koy fàtte <laughs> euh, donc il faut que vraiment ñu utal ko lu koy protéger moom ci boppam sax d'ailleurs euh, nee naa ci fal gi voilà mu doon bañ a fal rek ay politiciens parce que day laaj expertise suñu réew yi fi ñu toll Euh, néew ma politicien du am xam-xam bëri na politicien yoo xam ne am nañ xam-xam tubarkàlla macha allah. Mm-hmm. Euh, mais ku ñu ci nommé nga dem ci benn comité voilà d'évaluation de l'expertise yow nommé nañ la euh, ministre de l'agriculture waaw ah, très bien léegi wax ñu yow noo gisee autosuffisance alimentaire yow noo nar a fexee ba baykat yi ñu mën a am jumtukaay yu moderne xaalis bi ngay wax fan nga koy jëlee yan stratégie ngay def yu mel noonu comité bi bind recommandation ne waaw président kii day jàpp nañ ne war naa mën li nga koy sant wala ñu ne ah président kii moom bu yóbboo nga wut keneen bu ko defee yow ba ñu ka ñuy proposé poste ba sax boo xamee ne mënuloo da nga naan président utal ma lu gën a yemandaay donc comité yooyu d'évaluation des de l'expertise de l'expertise te ñi muy nommé daf ci am solo ñaareel ba aussi mooy mbiru njaboot moom mooy loi ba ma indi woon assemblée nationale les incompatibilités familiales kooku problème la ci Afrique lu sax Sénégal mhm. voilà Euh, day tax ëllëg ak si sa sa sa goro sa rak euh, voilà ñu mel noonu. sa xëy na du ñu nekk ci premier poste yi nga xam ne day am xaalis boo xam ne euh, dañu koy yore loolu dafa am solo bu ko defee am loi. bi bu fekkee ne boo demee kër ga nag soxna si ne la sama frère sama frère nga ne ko non loi bi mayu ma ko kooku it day am solo day limiter aussi euh, pouvoir u président de la république ba ci euh, wàllu budget dañ ne mooy ordonnateur principal du budget mm-hmm, mm-hmm. mais man budget bi dama jàpp ne euh, jigéen ñi ak ndaw ñi dafa am loi boo xam ne daf leen ci war a jox pàcc boo xam jigéen ñi ñooy ñooy ñooy cinquante pour cent jeunesse bi ñooy soixante dix pour cent tey boo doon xool budget national bi di ci seet la jëm ci ca soxlay xale yi ak soxlay jigéen ñi euh, doo ko mën a tracé kon loolu dañu war a am loi boo xam ne bii aussi euh, danaan temps pour cent nag nañ ko def ci programme mu jeunes yi tant pour cent nañ ko def ci programme mu même bu ko président bëggulee il est obligé appliquer lool bien que mooy euh, ordonnateur principal de dépenses donc loolu mooy garde-fou yi nga xam ne mooy wàññi doolewu président de la république bonne gouvernance di loo xam ne lii pour man ci suma xolu programme la nekk parce que problème yi ñu am Afrique ak Sénégal bokk ci mooy xaalis boo war a dem ci askan wi ah bon euh, il faut appeler un champ un champ ñu sàcc ko ah le mot xam nga dañ naan ger waaye nañ expliquer bu baax ger mooy lan ger mooy jël alalu réew mi di ci soxla di ci faj say soxla bopp kooku moom dafa war a jeex complètement bu ko defee euh, ñu am IGE boobu ñuy wax inspection général d'État xam nga ñooy saytu mm-hmm. mais bu rapport bi pare président lañ koy jox déggoon ngeen président bi ne moom da cee teg coñcoñ. am mu teg ci kuddam. mais doo ko jox opportunité boobu ñoom dañ leen di jël affecté leen ci ministère yi. man de bu ma nekkee président de la république incha allah loolu la ñuy def ñu nekk ci ministère yi ba noppi du ñu dépendre ci man dañuy dépendre ci assemblée nationale. ministre bi nga xam ne moom la ñu fal balaa moo def dépense ñoom ñu joxe seen ok vérifier ne ah budget bi moom lañ la woteeloon. mënoo ko dépassé ligne bi noonu la meloon ñu ne la dema nga exécuté boo exécuté ba pare nga indi li justificatif ñu contrôler justificatif yi mun nañu sax évaluer pertinence de la dépense nga ñu watal le budget voilà euh, mu am inondation bu metti mhm. ah ñu ne la waaw non au ngay jënd oto xëy na war ngaa mën a jël mbiru oto bi seet noo ciy jàppale ñi nga xam ne ñu ngi ci ndox meeg yu mel donc lool mooy opportunité de la dépense bu ñu paree mhm. chaque année ñu def audit des ministères dafa am solo. kooku dafa am solo audit des ministères man fa ma nekkoon Nations Unies chaque année ñu audité ma amul problème ma tax ku ma doon audit bi ñu may audité fii gisuma ci problème man damay campagnal Benno Bokk Yaakaar ñu may audité je ne voyais pas d'inconvénient pour man opération normale la donc yooyu mooy liy encadrer doole bu président de la République dafa jéggi dayoo parce que après mooy indi ñu. yi je pense que enfin. c'est c'est une question est-ce que amul ay réalité du pouvoir parce que euh, ñëpp ku bëgg toog en tout cas on, on se souvient du président de la République discours yu mu doon tenir par rapport à la bonne gouvernance moo fi waxoon gestion sobre et vertueuse je ne protégerai personne moo fi wax également l'homme qu'il faut à la place qu'il faut mais est-ce que amul ay réalité du pouvoir qui nous font changer d'avis une fois au pouvoir Mimi waaw mais il y a des réalités bien sûr il y a des groupes de pression kenn du y a la famille donc comment se loolu loolu déjà il faut mm-hmm. que système bi encadré la mooy li mu wax les réformes institutionnelles assemblée nationale woteel nañ ko sax pourtant ci ci constitution bi mm-hmm. ñuy révisé 2016 gën nañ leen jox doole mm-hmm. ci saytu programme yi da leen a mës a dégg ñu woo ne leen ña leen saytu programme programme emploi des jeunes bi moom la ñu war a njëkk a woote assemblée nationale woote nañ fi xëyu ndaw yi woote fi DER woote fi ñoom gis problème yi nga xam ne jeunes yaa ngi ko am di dem ci ci ci ci ci mbëkk mi di ci dee ñoom assemblée nationale bu ñu xamoon li ñu leen wateel ñu nangu koo exercer la ñu waroon na njëkk a def mooy ñi yor emploi muy ministre beeg ñi mu àndal kaay leen wax ñu xaalis bi nga xam ne def nañ ko ci emploi lan ngeen ci def kooku pouvoir bu ñu jox assemblée nationale bon bu ko bëggul exécuter tamit mënoo ci dara kooku di benn ñaareel bi aussi euh, ñu am contrôle citoyen dafa am solo dañu ne woon assemblée nationale chaque semaine boo xoolee assemblée nationale tugal yi wala bu France chaque semaine premier ministre ma nga fa ministre yaa nga fa di wuyu citoyens yi di indi seen i préoccupation seen i question député yi di ko porter noonu lañ ko mën a doxalee voilà président bi du ñu toog rek ne ah waaw diw de baax na waaw am am nañ confiance ci moom non dañuy am ay encadrement mhm. boo xam ne bi du ko mën a jéggi loolu daf cee am solo comme li xew ci yenn pays développés yi mais bien voilà man je pense que euh, noonu laa ko gisee euh, ba noppi nag aussi nit ñi xam ñi ñuy tànn nag aussi parce que comme ci tribune présidentielle lañ nekk dañuy seet ñi nga xam ne am nañu expérience bi am nañu xam-xam bi lañ leen dékkoon musuñu ko yàq am nañu expérience bi loolu aussi daf ci am solo parce que li koy wax c'est une rencontre entre un homme une femme et son peuple peuple bi aussi euh, na na na nga xam ne mës nañoo toog est-ce que voilà topp nañ la ci xaalis foog dafa am solo dafa am solo ci nañu nar sayto aussi candidat yi parce que pour man fo problème fondamental bi ñu am tey mooy corruption maanaam mm. ger bi jël xaalis ba yóbbu mënumaa wax ci corruption te du ma wax mille milliards yi mille milliards force covid li nga mën a def ci mille milliards euh, soxna nee ne kenn xamul nu mu toll un hôpital c'est c'est quatre milliards pour un pays pour un pays pauvre voilà donc yooyu boo ko teglee tegle ko tegle ko tegle ko mais il faut pas s'étonner que Afrique toll fi mu toll surtout que ña nga jëm ci am resu am am am am gaz ak xëy na diamant <laughs> ah waaw parce que jàng on a appris que am nañ am nay indice y a des indices ba hmm. nit ñi laaj ci ay licence dam naa fu amul dara kenn du fa laaj licence nee nañ sax am na euh, début benn entreprise bu def début d'exploitation semi-industrielle yaa ngi may xool di muñ parce que c'est vrai que dañ ciy wax avec beaucoup de précaution mais en tout cas. avec des mais en tout cas loolu la ñu la ñu liir ne moom la ministre des mines wax kon alal mu ngi waaj a am mais na ko na fekk alal jooju dellu si ci askan bi mhm. moo taxoon ci affaire euh, voilà jamaay ma ne il faut commission d'enquête parlementaire pour ñu xam ñaata licence la ñu jox sur combien de minerais. man nekk na premier ministre nekk naa ministre de la justice nekk na président conseil économique social et environnemental dirige naa liste Benno Bokk Yaakaar mosuma xam ne Sénégal am am na jamaa bañ ko fi seet mosuma ko xam waa est-ce que am na yeneen yeneen minéraux wala yu ni loolu il faut que transparence am. et pourtant c'est en contradiction voilà. parce que euh, nee nañ les ressources naturelles appartiennent au peuple donc le peuple dafa war a xam euh, exactement. lan lan ak lan ak la parce que ñooñu bañ leen joxee première question mooy ñooñu bañ leen joxe euh, licence pour ñu seet jamono est-ce que informé nañ conseil municipal ba c'est à vérifier est-ce que informé nañu conseil départemental ba ñuy seete c'est ça le contrôle parce que ñooñu ñooy population conseillers voilà ministres municipaux yi ak départementaux yi est-ce que informé nañ leen. donc j'imagine que su fekkee ne man ak fa ma toll woon ci système bi xaw a yëguma est-ce que ñoom danañ koy yëg donc yooyu yëpp mooy euh, li nga xam ne moom la ñu war a régler fa ñu jëm ba noppi sénégalais yi di ñu fa xaar. une une véritable révolution dans la gouvernance maanaam ni ñu naree yore réew mi. dans la gouvernance mais également ci mentalité également parce que su ñu waxu corruption waxu entre autres il faut voir mentalité wu euh, euh, la plupart des personnes ñoo xamante ne ñoom la ñu dénk aussi euh, yen yenn nombal tànk yi. ah waaw mais dañ leen dul may choix. <laughs> amul choix ab mentalité boobu mën a am boo ñëwee sàcc alalu réew mi dañ la war a jaarale comme ka nga xam ne dafa dem ca mar boutique gu jàmbur sàcc fa alalu jàmbur ñooñu ñu leen di def. ñoo nekk bari na ñu ne ca kaso ba ñii voilà lañu ganaar lañu ñu sàcc ñii et cetera waaw ñoo ñu jël leen euh, voilà tëj ña nga xam ne nag ñoom ñoo jël ay milliards non du affaire mentalité dama jàpp ne affaire loi la ak engagement ak ki nga xam ne moom la ñu dénk réew mi mu jël ci engagement ci wàll woowu man góorgóorlu naa ci def na cité nga ma ci ah def naa ci 10 ans amul amul lu ma toppee voilà loolu dafa am solo ci ci bu ñuy bu ñuy choisir aussi candidats yi mettre en place aussi vraiment système boobu nga xam ne benn dërëm dootul jóge ci réew mi tey aujourd'hui boo xoolee euh, difficulté yi nga xam ne ci la sunu sunu mbokk Sénégal yi nekk mhm. voilà difficulté yu tar yu métti justement en parlant de difficulté wax ngeen ni que da ngeen di éradiquer euh, la pauvreté mais comment éradiquer la pauvreté mooy jële fi ndóol man dama jàpp ne Euh, deux mille vingt doomu aadama di wut lu mu lekk wala di wut fu mu fajoo euh, Afrique rek laa desatul fen te Afrique asiatique yi ëpp ñu xel tubaab yii nii ëpp ñu xel dañuy dem ci seen école yi di fa jàng di leen raw suñu experts yi di dem ci ñoom d'ailleurs ñun ñoo ëpp avantage sax tubaab yi parce que ñun dañu xam suñu culture xam seen culture. est-ce du patriotisme lañ ñu ëpp. mais peut-être que loolu la ñu ëpp. mais loolu nag aussi dañuy indi yoo xam ne yow foog nga nekk bëgg sa réew par parce que xaalis bañ lay jox d'abord bu ñu lay tànn dañuy tànn ko am xam-xam ba noppi duñ la may possibilité pour nga sàcc xaalis mooy li ma wax dañ la dañ la contrôler buñ la joxee xaalis bi boo koy dépensé boo dépensé ba pare ba noppi defal la audit mensuel loolu def naa ni dina tax ñu ñu ñu ñu ñu mën a yegg foofu donc éradiquer la pauvreté d'abord mooy nit ñi mën a lekk ba suuf man en tant que jigéen panier de la ménagère mooy nekk suma première préoccupation réorganiser euh, subventions yi nga xam ne ñu ngi koy joxe entreprise yi yenn yi du ñu fay et cetera euh, non dañu koy loolu nag aussi foog faut que entreprise yi góorgóorlu ci. ñu xam ne dañu nar a fay ku ne di nga fay sa impôt ñu dajale subventions yi def ko ci ceeb diwlin suukar meew. am ay magasin de référence euh, xëy na xale yi duñ ko xam mais Sonadis loolu la woon à l'époque pour mun a contrôler les prix am une véritable politique de contrôle des prix fi ñu toll nii ku mu neex nga jaayee li la ministre bi day wax rek mais contrôle wuñ benn prix waaw ña gën a sonn ñooy ñaan mooy ñi amul ñi amul du aw ma yi aw ma dara contre les <laughs> am na commerçant yu honnête waaye nag dañu koy contrôler ba nga la xam ne loolu may prix bi ñu d'accord loolu lay jar def ko ci magasin de référence ñu subventionner prix yi loolu mooy première chose tranche Sénélec mhm. senelek tranche sociale bi mu doon une réalité mu bañ a doon diisal mu doon véritable woyofal parce que woyofal bi mu mujj naa doon diisal. loolu lu mën a nekk la waxaguma sax xaalisu pétrole beeg gaz bi yegg si de nga xam ne dañu nar am des ressources supplémentaires ressources supplémentaires yooyu man ci fi ma koy njëkk a dugal mooy ci dundu askan wi nit ñi mën a mën a mën a vivre décemment am voilà lekk bañ a doon problème sa problème su ba ngoon lu may lekk lu may jox sama doom yi ñu dundee ci wàll wowu par exemple xale yi nga xam ne dañuy xëy di jàngi école. Mm-hmm. bëgg naa ci indi programme mu ndekki à mm. lu mën a nekk la. xale bu ne boo xam ne mën dekki sa kër boo ñëwee am fa fonde yaa xam fonde lay doon liggéey ci ak groupement de femmes yi nga xam ne ñoo nekk ca fa wër école bi euh, voilà ñu mën a am fonde am meew am suukar am ci am ci am au moins kaas ça c'est loolu dafa amatul fenn. alors donc yooyu mooy yi nga xam ne am na solo parce que programme boobu mooy moo ci moo ci ëpp solo mooy éradiquer vraiment. Mais justement moo tax ñu doon poser la question mais comment éradiquer carrément la la pauvreté parce que mm-hmm. même bu fekkee yeneen dëkk yi da ngay gis ne que y a y a quand même euh, yenn yenn yenn pauvres yi toujours encore mais mais ça se comprend ce que vous venez de dire mais comment l'État a fait pour échouer ci sens boobu ba ba lépp cher est-ce que vous avez eu à faire des études pour justement ne pas euh, répéter peut-être yenn affaires yi parce que. parlant de texte parlant de ñoom ay initiative yooyu yëpp am nañ ko mais lan moom manqué justement pour ñu mën a dérouler et que euh, tout soit. mais man pour man non dama jàpp ne vision bi moo des autosuffisance alimentaire bañ doon wax. te ministre Pape Ablaye sekk doon ci liggéey bu baax a baax kooku xamoon liggéeyam la <laughs> voilà expert du riz la Africa Rice la jiite woon voilà mais ba joge fa jógee kenn toppat kenn suivratu ko voilà or soo amul autosuffisance ci la ngay jënd. mais da nga koy jëlee bitim réew teg ci transport pour mu ñëw bu ñëwee nga teg ci douane mais foog mu seer bu ñu yokkee ca fa nga koy jëndee foog nga yokk donc il faut que loolu ànd ak autosuffisance ci li nga xam ne moom la dundee ci ab jiitu ci voilà diwlin tey mais li sénégalais yi di consommer du sunu gerte gi diwlin buy huile de palme la huile de palme bi euh, ba nga jógee daanaka Malaisie day jaaree Côte d'Ivoire rek ñu reconditionné ko mu ñëw mais tey suñu gerte gi bu ñu ci amoon de petites huileries yoo xam ne yii dañ ciy former les communauté les paysans mais déw leen ji dinañ ko mën a consommer du chéré <laughs> chéraay boobu kooku c'est loolu c'est tout à fait possible moo tax ma ne aussi euh, il faut ñu am li ma tuddee industrialisation oui mënoo mënul ñàkk nga jël euh, euh, demal booru Ranérou maatam ak yu ni mel meew à part soow ko boo amatul foo ko denc voilà nga tuur bu nawet jotee defar fromage defar yaourt euh, defar euh, lait en poudre sunguf meew loolu du quand même lu extraordinaire soxna yi loolu war nañ ko mën mais noonu la ñu nar a créer emploi pour nos jeunes mhm. nga dem nga dem nga dem Kédougou mais ñu ne la ñu nga fay ñu nga fay ñu nga fay dindi or amul benn industrie liée à l'or amuñu sax un comptoir sax pour suñu bijoutier ñu biir juge yi dañ naan gisuñu or. mais loolu foog nga am chaîne de valeur. ci minéraux yi fa nekk j' espère que bu ñu gisee diamant bi ba mu feeñ dinañ former jeunes yi pour ñu nekk des tailleurs de diamant wala euh, ñu mën a am euh, koom-koom ak industrie buy jogee ci loolu voilà. ñu créer ay industrie justement ci secteur minier bi. ci secteur minier nga ñëw ci euh, yeneen secteurs yi aussi suñu mbokku mécaniciens yi. alors ce qui est dommage pour l'or cest à peut-être y a y a pas eu tout cela li nga doon wax tout à l'heure euh, l'ancien ministre des mines waxoon na ni que euh, groupement yi dañoo amoon problème TVA et pourtant c'est l'État du Sénégal mu ngi exonéré ay ay multinationales loolu yëfu am sa fulay bopp la ak sa fayday bopp man doo ñëw di exploiter samay samay minerais naan ma nii laa koy defee naka naka laa koy def dangay fay mënuloo ko sa moroom ñëw maa moom alal ji alal ji maa ko moom keneen moomu ko man maay définir conditions yi nga xam ne ci ngeen koy defee yow mënuloo sa morom dana ñëw parce que nag lu foofu la Afrique toll dëkk africain yi ciy génn mooy ñi nga xam ne dañu am seen fulla ak seen fayda maa ngi doon suivre Botswana ak seen euh, jamaa yi mais ñoom la ñu bëgg mooy ca jamaa yi ca lay am nga xoolal fa Botswana yegg raw ñu di rek donc loolu laa bëgg indi mu doon fulla ak fayda joo xam ne man du ma moom sama alal nga ma ciy ëppale kooku moom du ma ko nangu du ma ko nangu te def naa sénégalais yi aussi loolu lañuy xaar ku leen taxawal ci seen ci seen alal ñu gis ci seen bopp man dem naa def tournée wu euh, waroon nañ def émission boobu maa nga woon Saaraya Salemata dem naa ba Xosanto fa euh, hmm. fa événement yi amoon fi ñu reye woon ñaari xale yi parce dañ doon manifester hmm. mais ci parti yi nga doon dool ci Sénégal la bokk or baa nga fay jóge tali ba ngay jógee euh, Kédougou pour dem Xosanto mais jéemuñ caa def sax latérite waxuma waxuma goudron de latérite sax déemuñ ko caa def. c'est paradoxal. parce que ñoom am nañ aéroport seen cadre yi aéroport ba avion bi la ñuy jël dem ak dikk population yee leen wër mais lii lycée bu baax sax defaluñ leen ko fa femme ya amul nuñ leen jàppale te muy sama alal man ñu dëkk foo xam ne or a loolu dafay dakk dañuy damay damay taxawu suñu suñu alal parce que noonu aussi lañuy taxawoo suñu pétrole ak suñu gaz loolu euh, day bokk ci li nga xam ne dina yokk. vraiment koom bi. Hmm. ba recette yi ñu ciy am ñu mën cee jàppale aussi coût de la vie parce Sénégal Dakar dafa bokk ci ville yi gën a cher. gën a cher jàppale aussi secteur informel kooku ci suma këru programme la nekk fii. 90 pour cent suñu économie secteur informel la du ay entreprise de comme hmm. yéen fii nii de mooy tailleur yi informel mooy tailleur yi mooy mécanicien yi mooy gargotière yi mooy coiffeuse yi mooy menuisier yi mooy soudeur yi ñooñu ñoo yor Sénégal ñooñu ñooy doxe de dépense ci kër yi mais naka la leen état taxaw bu dee mécanicien yi tey am sa garage ñu yëkkati la parce que terrain jàmbur lay doon nga ñuy toltolaan état di wax espace bi ñu leen di joxe booba ba tey ama avancé wuñ ci kooku ci priorité yi lay bokk ñu former leen aussi former les jeunes mu am des centre de formation boo bëggee nekk mécanicien tey. nga jàng ba CM2 jàng intéressé wu la boo amul nijaay wala mag bu la formé comme apprenti mécanique doo nekk mécanicien. mais war na nañu dans chaque département ñu am ay centre de formation ak niveau yi ñu am. Hmm. en fonction de la am ca gox ba wax naa affaire wu ferlo ak meew mi wax naa wax naa Kédougou mais man noonu laa mën a waxee Thiès ak mbay mi ak tous les secteurs ñu former fa les jeunes parce que balaa nga wax emploi il faut une formation adaptée affaire bi formation emploi industrialisation financement daf ci am parce que boo formé jeunes yooyu yëpp après noo leen def da nga di organiser en coopérative de production ma dem naa dem na euh, Kolda ñu ne ma fii ay naar ñoo fi ñoo fii cultiver banaan ana naar ak banaan <laughs> <laughs> voilà yaag yaag kan ak bawol bay xëccoo Saalum comme ana naar ak banaan te suñu tool yi maam mais jeunes yi pendant ce ngi toog du sax mbay séddoo du sax ay mbay séddoo de ñoom dañuy ñëw loué suuf si wala ñu jënd suuf si euh, di fa def banaan di yóbbu seen i dëkk ñun suñu jeune toog. donc dañuy les espagnols les italiens ñoom ñëpp ñu ngi ci àll bi di ah, bay. foofu c'était les algériens pour ne pas les euh, lu mu xam ci banaan <laughs> ñun ñu yor suñu suuf yor suñu ndox yor suñuy voilà donc loolu mooy changer. dans da nga koy wàcce nag politique bii may wax. Mhm. dama koy décentraliser ba ci village yi ak quartier yi. parce que kooku aussi réforme bu am solo lay doon ñun. comment je vais vous expliquer. Mm-hmm. tubaab yi bi ñu ñëwee dañu indi état état bi ñoom développé nit ñi seen yoon newu ci woon. xëy na daan nañ am de tuuti vacciné nangam waaye développé Afrique woon seen problème ñoom nañu jël ressources yi fi nekk. di yóbbu di yóbbu seen i dëkk di développé seen bopp. boo xoolee dëkk bu mel ni Belgique. Mm-hmm. RDC mot na ko quinze fois. Mm-hmm. <laughs> voilà ñoom ñoo ne woon RDC jël ah, la fa nekk yëpp yóbbu. ñun état boobu moom la ñu conservé euh, bu dee chef de canton bi moom lañ tuddee maire bi euh, commandant de cercle bi moom lañ tuddee gouverneur gouverneur bi mooy président changé wuñ ci dara touri rek lañ génne mu centraliser lépp ne ca kaw fonctionnaire bu mag ba ca kaw mm-hmm. dana ci gis boppam euh, d'âge ba bien sûr dana ci gis boppam et cetera mais ca suuf bénéficiaire ba maanaam population ba lay yegsi ci ñoom du bari da ngay pour man dañu war a inverser mbir mi di déparé ca quartier ba conseil de quartier bi ñu jox ko yelleefam parce que mu ngi ci loi bi muy def plan d'action bu ñu def plan d'action xale yi ne ñun lii la ñu bëgg. Mm-hmm. école euh, centre de loisir parce que ci la bokk femmes yi ne ñun dañu bëgg euh, aussi euh, financement imam yi ne nañu defaraat mosquée bi enseignants yi ne école bi ñu def plan d'action am loi bu ne maire yi bu ñu la joxee budget biy jógee état bi ñëw ci yow. dix pour cent rek nga ci mën a retenir quatre vingt dix pour cent yi da koy jox comité de quartier ak comité de village yi pour financer seen i seen développement bu ko defee nit ñi dañuy gis seen bopp directement ci li leen état di jëriñ xam nga bëri na dëkk Afrique mhm. ñu naan la sécession am na euh, ñii dañoo bëgg a beru mais parce que duñ gis seen bopp ci état dañuy dégg état bi rek mais état bi indiwu fi dispensaire indiwu fi école indiwu fi dara donc loolu day doon une véritable décentralisation ak une gestion communautaire duñu leen bàyyi rek ñoom ñuy def mhm. dina am euh, sous-préfet ñoo contrôler préfet ñoo contrôler ba noppi réforme bi may indi ci ministère yi mooy ku ci nekk da ngay définir ni ngay jàppale comité de développement locaux yi nga xam ne ci conseil de quartier bi la ñuy la ñuy tënku conseil de quartier bi nag. ay politiciens ñoo fay toog. consensus la ñuy def ñi nga xam ne population bi wóolu nañ leen ci jigéen ñi ci ndaw ñi ni ma ko waxee ñu daje fa ak di rotation comme ni ñuy def comité de santé yi. Hmm. doo dégg coow ci comité de santé yi. d'accord voilà donc loolu day am solo bu ko defee ca plan boobu. ca la ñuy xool xale yi nga xam ne moom ñoom la ñu war a former au niveau du quartier jigéen ñi nga xam ne dañu soxla financement ñu xool ca quartier ba aussi unité de production ya fa nekk ya ma wax nu ñu leen di jàppale loolu la ci am solo parce que boo définir loolu yëpp nit ki am formation ak yooyu te amul financement mais pas financement yi ni ñu koy defee nii man dama définir ñetti type de banque banque des femmes jigéen ñi li ñuy liggéey ci Sénégal euh, mënoon naa gën a am am am am am importance mënoon nañ ko gën a ful gën am impact mënoon nañ ko gën a ful voilà su fekkoon ne am nañu financement bi ñu soxla ci wàllu banque mais suñu financement yi ñuy jot donc ça sert à ak. Euh, xaw a ba noppi amul vision. DER tey boo indee projet ganaar ñu financé la boo indee projet tailleur ñu financé la boo loo indi ñu financé la mais da ngay am axe man dama naan dañ may industrialiser ana jeunes yi nga xam ne ñu ngi Kolda parce que Kolda dañ fay dañ fay bay gerte du ma wax Saalum rek pour ne pas être <laughs> régionaliste mais Kolda mooy léegi booy seet la ñuy am ci gerte Kolda amuñu ko Saalum. Mhm. loolu il faut Saalum Saalum yi xam ko. Euh, ma ne année jeunes yi année yi nga xam ne vraiment dañu bëgg a nekk ci transformation arachide ñu ne ñu ngi nii ma centre de formation baa ngi nii on va vous former ñu former leen ba pare ñu ne leen groupement de production ngeen di doon banque bi nga xam ne mooy la banque des artisans ou des femmes ou dee sénégalais de l'extérieur ñëw en appui te loolu du xaalis bu may jéegaane de damay réorganiser waat xam nga wax nañu waxu DER. Mhm. waxu microfinance waxu mais ñooñu boo dajalee li ñuy def. mën nga koo def ci banque. justement mais. Euh... les sénégalais de l' extérieur. jigéen ñi xam nga loolu laa wax artisans yi xam nga sànq tuddu naa leen boo buggee industrialiser ci artisans yi ngay jaar. Mhm. tey industrie du cuir bu ñu demee tabaski der yi nga xam ne moom la ñuy utiliser italiens yi dañuy ñëw jënd ko defaraat ko moom bu baax. suñu udee bu ñu soxlaa der seen der la ñuy jëndewaat mu jóge Italie ñëw. Mhm. donc da ngay am filière tannerie forme euh, suñu suñu suñu udee yi jox leen ay machine industrialisation tey nga jox leen commande dàllu policier commande dàllu armée mais loolu. pour suqali leen mais vous, vous avez parlé d'industrialisation ak bon financement yi également. Mm -hmm. euh, mais suñuy xool euh, fan nga nar a puiser justement tout cela parce que suñu waxu dette on est près de on est de pour cent de la dette alors est-ce que vous comptez sur les ressources naturelles pour pouvoir euh, bien sûr financer lii nii yëpp. d'abord yàq bi lay wàññi. nee la càcc gi moom day dakk réduire le nee naa la dakk dèjà càcc gi day dakk xam nga mille milliards yooyu xajoon na ci lii ma lay wax ni n'est-ce pas voilà donc loolu bu fekkoon ne amul problème yi nga xam ne Cour des comptes ko wax du mën a maa ko wax kon déjà doon nañ mën a am euh, voilà ndimbal ci wàllu googu organiser waat suñu budget déjà loo xam nga loolu laa wax ministres yi vingt cinq doy na ci sëkk kooku je prends l'engagement que vingt cinq ministres la ñu am mën nga ma vaar <laughs> euh, damay jàpp aussi ne institution yi conseil économique social et environnemental au conseil des collectivités territoriales euh, conseil du dialogue social benn lay doon benn ak maximum trente membre yu jóge ci secteurs yi di jox conseil conseil dafa solo aussi ñu koy déglu conseil dafa solo mm-hmm. foofu économiser nga fa ñaata milliards parce que yii bu ci nekk bii neuf la bi bi bii six euh, ak ba ca des loolu yëpp mu dem foofu donc train de vie de l'État wàññi ministre yi wàññi euh, institution yi am aussi allocation pétrole et parce que ca lañ jëm ak peut-être diamant <laughs> et le reste mais voilà donc yooyu. Euh, ci la ñu waaw diamant bi diamant bi ah non mais diamant bi nag quand même euh, voilà maa ngi masawu maître Moussa Diop. Mhm. ca fa mais au moins faut reconnaître que ah, moom moo tax ma xam ne fii xëy na Sénégal am na diamant loolu c'est une grande nouvelle ah c'est une grande grande nouvelle mosuñu ko yegg fenn. léegi nag damay laaj leneen lan li ñu am loolu yëpp nañ ko saytu ba xam ko mais gestion bi mooy am solo mënuma wax programme te waxuma sama mbokk sénégalais de l'extérieur yi hmm. dañ leen di bàkk ñooy dugal ñaangami milliard mais ñoom ñun lan la ñuy defal lañ leen leen defal ñoom ñoom ñu rek ay nag yooyu ratt rek aussi vache lañ man dama jàpp ne fa ñu nekk am nañu ay projet ak ña nga xam ne ñoo fa nekk ñoo xam ne bëgg nañ investir ak ñoom bëgg nañ investir ak ñoom ñoo xam Amérique la France Italie Espagne fu mu mënti nekk wala Afrique centrale d'ailleurs euh, ñu ñëw am banque bu leen jàppale la banque des Sénégalais de l'extérieur kooku nag aussi damay jël fonds yi nga xam ne FAISE la Euh, fonds d'appui euh, dégg naa ñuy non ka xaw ma sigle bi mais <laughs> fonds d'appui mais fonds d'assistance là aux politiciens euh, s'ils veulent la vérité au fond <laughs> voilà pour vous tout est politique euh, fonds de financement yëpp c'est politique. mais bien sûr mais looloo war dakk parce que boo ko defee ay banque xam nga banque politique amu fa hmm. ah. <laughs> banque moom day jaar yoon euh, voilà teg fa ay professionnels yoo xam ne mën nañu liggéey hmm. euh, bu ko defee ñooñu secteur yooyu ñu mën leen a jàppale man ci ku am espoir ci Sénégal la parce que dama gis opportunité yi mais dafa am lu ko gàllankoor vision corruption d'abord vision ak aussi engagement personnel ak ak nag aussi ñu jiital xam ñeent ñooñu la ñuy la ñuy boole man dama jàpp ne Sénégal moo tax may wax ak su may wax ak sénégalais euh, les jeunes sénégalais dama jàpp ne fii ngeen gën a amee opportunité que bitim réew ma ngeen jëm ak Europe ba ngeen jëm parce que euh, euh, li nga xam ne moo nu moo ñu tënk loolu bu bu deñee rek. Sénégal incha allah dana war a mën a dem ca. justement quel plan pour les jeunes alors euh, euh, lan lan nga euh, sabab pour jeunes yi man quand quand vous parlez enfin moo tax bi nga nee vaar tout à l'heure j'ai j'ai rigolé un peu parce que dinañ la vaar en tout cas. Ah président de la République Macky Sall ça ça me fait un peu peur su may dégg yenn wax yi parce que je ne comprends pas pourquoi ñu ñëw ak ambition yooyu et après on a vu ce qui s'est passé côté ministre côté bonne gestion entre autres mais qu'est-ce que lan nga nar a indi pour pour jeunes yi. voilà mais avant lu lu tax muy am mais nee naa la nit ki aussi da ngay seet ci parcours pour mën a aussi euh, njortu lii nara am ci suma parcours dem na yàqu ma eh, aussi am naa ci fierté boobu. ci dimba ak dimbalu yàlla. Euh, mais les jeunes mooy li ma la wax programme bi ma étalé yëpp. Mhm. en fait jeunes yi ñoo ko moom. d'accord parce que munoo am population boo xam ne soixante-dix pour cent amuñu trente cinq ans fanweeri at ak juróom ba noppi doo def au cœur de li ngay def. Mhm. dem naa problème boobu le président Sall am. c'est-à-dire autoroute baax na euh, voilà euh, ay pont autopont xëy na bien que autopont yi nekk Dakar bu doon man rek du ma ko fi def parce que mënuma am capital bu bees euh, di def autopont ci ancienne capitale bi alors que Diamniadio nga ne VRD yi les voies et réseaux divers ña nga fa mm-hmm. immeuble yi ngay gis noonu kenn mënu cee dugg parce que amul ndox amul courant amul dara depuis dix ans mais bon passons mais li nga xam ne mooy li ëpp ci population Sénégal jeune jeune fille comme jeune garçon duñ ko li ñu soxla ñoom mooy d'abord formation wax naa ko. mooy formation ma ne dinaa ci indi d'abord ñaari mbir d'abord damay dugalaat euh, langue nationale à l'école bu ko defee xale yi euh, parce que bëri na ñoo xam ne CM2 la yem soxna ne na cm parce que boo demee ci village yi xëy na parents yi duñ amaguñ moyen pour ñu dem à extérieur. Euh, dinañ gën a gaaw a jàng ak langue nationale. Hmm. parce que chinois bi ci chinois lay jànge indien bi ci indu lay jànge malaisien bi ci malais lay jànge kon ñun war nañu mën a jànge ci wolof séeréer joola mankaañ war naa mën a nekk waxuma ne dañuy abandonné français non mais dañuy yokk sax anglais parce que anglais mooy langue nationale bu ko defee bu ñu see ba CM2 ma am les centre de formation yi ma la dama koy démultiplier boo ñëwee ba CM2 war ngaa mën a lire écrire mën ngaa bu fekkee ne plomberie moo la intéressé ñu war laa mën a former bu fekkee ne yow mécanicien nga bëgg a def war nañ laa mën a former mm-hmm. bu fekkee ne yow esthéticien nga bëgg doon war nañ laa mën a former et cetera ñuy continuer ba troisième nga mën a def sa BEP mm-hmm. continuer ba euh, terminal voilà ba ingénieur a maanaam indi li nga xam ne euh, formation boo xam ne du doon làkk tubaab rek yu rafet mais amal na leen njëriñ surtout ci sa gox kooku day doon loo xam ne jeunes yi la la la concerné. mais boo ci tolloo ci benn at bi ñu def leen en groupement parce que xale du liggéey. dem ba 18 ans en groupement de for de, de production fekk na yow am nga formation de base bi état mooy ñëw doon premier client état day jënd ceeb euh, day jënd soble foog nga nourrir militaire yi hmm. euh, foog nga voilà hôpitaux yi écoles yi et cetera donc état ñëw comme premier client état dina commander pour plus de deux mille milliards commande publique. état bi ca ñooña la koy laaj. bu ñu bëggee defar bureau ministre bi menuisier ba lañ koy jële affaire bi du jógee Chine di ñëw wala di jógee feneen bu fekkee ne am na ay tenue pour militaires yi tissu ba dañ koy defaree ca usine bi nga xam ne moo ne Kaolack Domexca. Mhm. treillis militaire war nañ koo mën a defar fii. naturellement. voilà mais yëpp dañ koy importé mais no noo bëgg a créer emploi bu fekkee ne lépp day jógee bitim réew. non seulement mais. ndekki ba reer est-ce que du yi nekk ci plat bi yëpp dañ koy. ak li ñuy ak sol yow man ak sol yëpp dañ koy importer <laughs> voilà donc yooyu yëpp euh, il faut que euh, ñu ñu ñu fexe ba am lool groupement de formation de de production formation groupement de production financement par ñetti banque yi ma banque des femmes banque des artisans banque des sénégalais de l'extérieur mm-hmm. état ñëw ak la première commande ak promouvoir nag suñu suñu suñu produits la yi bu ko defee mm-hmm. euh, mais day commencer par président bi du sol loo xam ne defaree nañ ko fi voilà bu dee ministre bu jigéen bi sac ba muy am uude ma na moo na koy defar dàll yeeg fii la ko jëndee et cetera loolu la Thomas Sankara indi woon à l'époque mm-hmm. bon xëy na il était en avance sur son temps mais dafa am solo naturellement voilà bu ko defee xale yi di ko gis euh, naan euh, voilà mais ça c'est un programme aussi à long terme non maintenant à court terme mais maintenant qu'est-ce qu'il faut peut-être euh, mais même bu fekkee à court terme ça va prendre peut-être cinq ans pour le faire oh, moins que cinq ans bien sûr que non tey lan moo ñu tere tey bu ñu nee conseil de quartier Euh, ca quartier ba ñu ne ana jeunes yi ñuy former ñu ngi nii. ñu ne formation yaa ngi nii. moins de cinq ans. mais bien sûr que non. ça immédiat ce sera immédiat ce sera il faudra mettre le pays au travail immédiatement. xam nga on accélère. bah la cadence fortement <laughs> loolu day am solo fortement parce que nag il faut que ñu indiwaat espoir ci suñu ndaw ñi. gis li ñuy gis ça nous fend le cœur. parce que je pense que en tant que yaay nous fait saigner le cœur maanaam suñu. il que ñu ñu redonner espoir à ces jeunes. parce que on ne comprend pas pays boo xamante ne ñu ngi euh, nee nañ am nañ pétrole gaz. ak jamono et pourtant euh, jeune yaa ngi koy bàyyi di dem euh, di outil des lendemains meilleurs mais parce que aussi c'est et puis ñay dem c'est pas les plus pauvres mais boo gisee justice bi ni muy doxee deux mille cinq ñu tëj leen ci kaso bi lu ñu doon def jàppoon nañ ne pays démocratique lañ nekk mën nañ manifester suñ kontaanul ñu ne la ràpp ci kaso bi donc mon responsable départemental de Mimi 2024 bu Souleymane Dembélé taxaw mook responsable Pastef Abdou Mbacké ak une euh, voilà ñu ne ràpp yóbbu aucun acte judiciaire juridique n'est posé aucun six mois ñu ngi ci kaso bi six ils sont plus de dans ces cas comme ça mais jeunes yi dañuy désespérés parce que àddina c'est pas seulement matériel wax nañ sànq affaire justice hmm. donc loolu aussi booy seet kersa la pour ne pas dire gàcce la ci ci ci ci ci nii yëf yi demee ni nga ko waxee am or am am am am pétrole buy ñëw am gaz buy ñëw mais bu ñu gisee aussi les agressions yi am contre la démocratie parce que démocratie aussi euh, mooy li li li dundal nit ki aussi nga am sa soxla voilà euh, mën koo wax nga voilà et cetera ba ci yéen journalistes yi gis ngeen li ngeen ci daj voilà donc yooyu yëpp aussi dafa bokk ci leen découragé donc projet aussi démocratique bi dafa am dafa bokk nag ci nouvelle gouvernance bi mooy ñu indiwaat démocratie bi démocratie aussi waxul du désordre bien sûr ça ne veut pas dire le désordre mm. mais ñu ñu ñu ñu ko saxal on peut de la démocratie voilà ça mais ñu saxal aussi euh, vraiment yelleefu doomu aadama euh, les droits des citoyens euh, loolu it day doon engagement boo xam ne dama koy jël dama manière très ferme. vous avez parlé de diplomatie gagnant gagnant. lan hmm. lañ mën a dégg ci loolu. diplomatie gagnant gagnant du dara lu dul. man hmm. sama intérêt bopp moo may moo may moo may moo may soxal. le Sénégal d'abord du ma am ennemi du ma nangu Sénégal am ennemi ay xarit rek laa yam waaye xaritoo bi yëpp ci sama intérêt lay doon parce que dëkk yëpp noonu la ñuy doxal France intérêt lay doxal donc Sénégal na doxal ay intérêt Chine intérêt lay doxal Sénégal na doxal intérêt Brésil intérêt lay doxal na doxal intérêt nañu xool nag fi nga xam ne foofa la ñu yow nga am ci man ma am ci mu équitable mais mënu ma am samay ressources man nga ëppale ma ci mu te nekk voilà yow mënuma saa yoo buggee dëggee sama dëkk dugg man sama gars ñi bu ñu bëggee dem ñu ne leen léegi mais moo tax vraiment ma gisee voilà euh, je vois que les étudiants euh, désormais pour dem France ñu ak la loi bi ñu nar a passé da ngay pay bàyyee caution na tax ñu war toog suñu réew yi am suñuy centre de formation yoo xam ne day nekk à niveau mhm. voilà ñu wóolu suñu bopp man li ma gëm mooy wóolu suñu bopp te war naa mën a nekk mhm. taxawal suñu bopp loolu nag la muy laaj. Mhm. damay li ma wax beaucoup un esprit de sacrifice de nos dirigeants. parce que nag am na foo xam ne fii bu ñu fa tolloo euh, sa titre en tout cas man sama titre mooy doon maintenant Sénégal jóge fii dem ci beneen niveau loolu mooy fierté nationale indiwaat ko aussi ci suñu xale yi. nga ne man man je suis fier d'être sénégalais je suis wala d'être am ci am ci am ci titre parce que gis nga sa dëkk di avancer tey Rwanda yi foo leen gis bu ñuy dox dañuy teen parce que ku nekk Rwanda Rwanda Rwanda mais ñun ressources yi ñu am intellectuelle culturelle Rwanda amul li ñu manqué mooy vision bi ak ak ak gouvernance bi une véritable révolution de la gouvernance voilà ba nga xam ne amul dërëm boo xam ne bii du dem fa mu war a dem di expliquer nag di waxtaan ak Sénégalais yi parce que ciy am solo yemale aussi ñëpp ku nekk gis ne fii droit yi ñoo yem day am ay mesures symboliques tey bu ñu nee recrutement fonction publique am na 400 chauffeurs. Mhm. ñu ñëw fii tànn au hasard télé bi nga xam ne fa lañ koy tiire comme l'auto France ku nekk dem appliqué ñu xam ne chauffeur ñi bëgg a nekk chauffeur bari nañu ñu tiire ko ci télé bi ku ci sa chance nekk nga dem nekk chauffeur bi devant huissier ñëpp gis ne yem nañu lu ñu ko tere def dara terewuñu ko def États-Unis boo fa demee bëgg a inscrire sa doom ci benn école publique boo xam ne nee ñu niveau bi baax na dañ na laan ñëw leen samedi matin nga ñëw samedi matin ñu teg kees ngeen di tirer di tirer di tirer di tirer. Mm-hmm. bu place yi jeexee ñu ne ah place yi jeex na mais loolu la amul amul doomu maire bi doomu ministre bi déedéet yéen ñëpp a yem mais nañ ko def ce n'est pas possible li may wax nii lu lu lu lu faisable la du lu extraordinaire dafa di lu ma gis gis lu ma ba noppi nag il est temps que vraiment ñu ñu li li américain naat leapfrogging le saut de la grenouille c'est-à-dire ñun dañu war a jóge fii tëb na le mooy li ma wax accélérer la cadence suma xol bi laa ko tibbee woon parce que damay gis potentiel bi sénégalais am na xel. Mhm. sénégalais euh, tolérant na xool li ñuy dundee. voilà fii amul ñu naan la diw ethnique nangam xëy na ci jamono yu mujj yi la xaw a tension yooyu am na musul am. Mhm. dañuy sëyante suñu biir. voilà euh, chrétien musulman yo jox ma ngalax yóbbul la yàpp tabaski vraiment loolu mayu yàlla la aussi yàlla defalu ko tous les peuples. Mhm. bu fekkee ne ñi ñu jiite def nañu ci le les efforts qu'il faut jàpp naa ne ñun saut de la grenouille la ñu def lu ñu benn benn benn benn déedéet avancée spectaculaire la ñu def te war naa mën a nekk lu war a mën a nekk on a tout pour pour réussir alors oui. pour parler des infrastructures euh, et surtout aussi des infrastructures sanitaires je pense côté santé également am ngeen ci ay ay ay ay yoo xamante ne mën ngeen ko kooku mu ngi woon ci suma programme éradiquer de la pauvreté parce que pour man la lekk ba suur mhm. euh, feebar faju euh, mën a aussi euh, dund fu sell euh, dafa am sele am solo ak njàng commencé santé santé war nañu am un hôpital régional de référence dans chaque région tey am na ci feebar yoo xam ne boo ko amee da ngay jël jógee Kédougou ñëw faju si Dakar c'est pas normal suñu centre de santé yi ñu mettre leen à niveau tous les centres de santé am au moins radiographie échographie petit euh, laboratoire ak un petit une pharmacie parce que suñu centre de santé yi boo duggee la ngay génne mooy liste ordonnance donc loolu dañu koy def aussi ci priorité yi dafay dafay am solo dal di doon une une des priorités la mise à niveau du plateau sanitaire un hôpital régional de ref par région fexe ba am suñu centre de santé yi ñuy ñuy dox comme il faut loolu moom euh, ci suñu ci suñu priorité la euh, logements sociaux temps yi laa gis ministre bi mu ngay voilà et cetera joxe nañ vingt euh, kër Kébémer et cetera waxuñ loolu cent mille logements euh, loolu programme bu am solo la da seet noo koy liggéeyee décentraliser programme bi am na ñoo xam ne bëggatuñ dëkk Dakar bëgg nañ nekk seen dëkk depuis HLM kooku c'était une excellente idée du président sengor boo demee tey Sénégal Nioro am na HLM mm-hmm. voilà Bignona am na HLM maatam am na HLM mais aujourd'hui Euh, tradition boobu dañu ko perdre fexe ba dans suñu yi parce que ni ñuy occuper territoire bi aussi dafa am solo ñëpp dànkali Dakar gis nañ li muy jur voilà. c' est pour ça qu' ont essayé de décentraliser yóbbu un peu euh, fële ca ca Diamniadio. Diamniadio c' très près de Dakar man ma doon jël solution bi danaa ko gën a soreel. pour yow c' pas dafa jege Dakar trop euh, déjà mais il faut que mu ay pôles. yoo xam ne yi yow boo nekkee ci sa pôle yaa xam euh, pôle centre la lépp dana la fekk sa hôpital la nga fa sa université nga fa comme pays développé yi ñi nga gis en France ku dëkk Lyon mos ta ñëw dund ba dee du dem Paris am fa soxla hmm. voilà États-Unis nga xam ne lañ jot ci état ay état kenn xamul lu mu toll fa ñu dëkk mën nañ faa dund ba dee duñu du ñu dem New York du ñu dem Los Angeles parce que lépp nga fa donc loolu réoccupation territoire boobu la koy indi mooy d'abord koom-koom. Mhm. ñu décentraliser ko mooy li ma wax sànq. Mhm. ak réindustrialiser du réindustrialiser parce que ñun dañu désindustrialiser wu. li fi amoon as néew amoon nañu Bata amoon nañu Icotaf loolu yëpp disparaître. Mhm. encore une fois je ne aw ma aw ma problème ak suñu mbokk commerçant yi. mais suñu mbokku commerçant yi dañoo war a doon ay industriels au lieu ñuy jéggaani ñu jàppale leen ñu am ay usines di produire fii dafa am solo. mais ba ci am ba produire oto. soxna ne na oto c'est pas la mer à boire au moins des unités de montage ñu am ko fi mhm. voilà ole ñuy xool oto boo xam ne daw na Europe ba sonn carburant xaw ma gasoil nga xam ne Dakar ci ville gën a pollué ci monde bi la bokk xaw ma quatrième la ñu xaw ma moo tax moo tax lépp bëri fi saqat seeg asma yeeg yu demee mhm, mhm. parce que day oto boo xam ne pollué na dëkkam ba jeex ñu indi ko fi ñun lu ñu tere am ay usines yoo xam ne dañu fiy defar dañu fiy monter oto ce n'est pas compliqué sénégalais bi am na xel bi xam-xam la oui chinois yi loolu la ñu def gis nga chinois yi. 1949 dañ doon dee ak xiif ñi judd 49 fii di la dégg lii may wax moom la ñu def dañ daan importer lu ne ay kudd ki dàll ki ñu xëy ne loolu yëpp dootuñ ko importer. ma nekkee président de la république ministre de l'industrie dama ko naan jox ma liste bi nga xam ne produits yi mën nañ ko fi produire dans 3 4 mois kudd neex naa di defar quand même. ay palaat yi ñuy lekkee war naa war nañ koo mën a defar ay carax war nañ koo mën a defar. Mm. ngay dem di yéeg. puso voilà puso cure-dent yooyu yëpp dañ koy importer kon loolu ambition la ak vision man noonu laa gis ak vraiment euh, yi aussi ñu waxtaan ak ñoom euh, ku nekk nag dellu ci liggéey ñu indiwaat nag le mythe de liggéey liggéey dafa am solo. Mm-hmm. américains yi bu ñu lay bàkk dañ naan you are a very hard working man wala a very hard working woman mooy yow ku mën na liggéey nga borom kontaan war nañu ko indiwaat fii danaa indi concours artisan yi. Mm-hmm. meilleur menuisier meilleur tailleur meilleur mécanicien mais nit ñi vraiment am émul voilà émulation nit ñi mën a mën a mën a kontaan ci seen liggéey voilà ñaq di jëriñu parce que ci la sénégalais yu bëri les quatre-vingt-dix-neuf pour cent des sénégalais seen ñaq la ñuy dunde amuñ leneen lu ñuy dunde parce que bu ñuy wax corruption bi na la fekk sax nga nekk fa <laughs> place ba ñuy corruption bi day amee kooku ci élite ba la donc loolu dañuy indiwaat aussi mythe boo xam ne bi du travail. Mhm. waxtaanaa nag ak suñu mbokk sénégalais yi ak surtout les jeunes. ñu ñeme liggéey. voilà jeunes yi aussi ñu gën leen encadrer. Mhm. ak liggéey ak loisir aussi. xam nga côté boobu kenn du ko wax mais mhm. jeunesse day am loisir. dafa am solo centre de jeunesse yi xool les stades. amoon na sax rénovation des stades mais xaw ma sax fu mu mujjee am département bu nekk war naa am euh, béréb boo xam ne bii jeunes yi war nañ faa mën a sport mën nañu am une salle. defaree espace vert voilà salle des jeunes ñu man faa am seeni i musique ak dem naa euh, voilà ci yenn village yi jeunes yi loolu lañ doon wax ne voilà ñun dañuy toog soo magoon on on n'a rien à faire une jeunesse aussi est fait pour voilà avoir des loisirs loolu it day bokk. Euh, ci ci ci priorité yi. ak ak ci sport. ak euh, ak yu ni mel. Euh, fexe aussi. bay waxtaan ak ñoom esprit citoyen bi ñu indiwaat ko. Mhm. voilà suñu culture aussi ñu suqaliwaat ko mënuma wax ci émission yi te waxuma culture culture. dafa am solo ci réew kooku président sengor boo ko comprendre nit ki culture am la boo jëloon benn xale bu juddoo Sénégal yóbbu ko Chine. fekk moo am zéro mois nga ñëwaan fa dix ans fekk ko ci famille chinoise ba ab chinois nga fay fekk. Hmm. doo fa fekkaat Sénégal pour wax la culture ni mu fooree ci doomu adama ñun suñu culture dañ koo sàggane. kasak yi fàtte nañu ko baaw naan yi fàtte nañu ko mais loolu mooy sénégalais bi voilà euh, yooyu dañu koy indiwaat acteurs yi ci nekk mun na nekk seen liggéey mun na nekk seen profession hmm. réhabiliter le théâtre très bien un peu ça réhabiliter le théâtre industrie de la musique aussi ñu encadrer ko sànq maa ngi wax banque des artisans bare bokk ci ñi nga xam ne dañ leen koy financer voilà les artistes les voilà les comédiens ñoom ci la bokk aussi parce que réew aussi loolu la ñi ko seq dañu bëri ñoom it seen pàcc da leen koy jox. les personnes à mobilité réduite. c'est ça les personnes vivant avec un handicap avec un handicap physique comme mental parce que dañuy fàtte aussi l'handicap mental fii daanaka amul école. pour les enfants qui ont euh, voilà des, des des difficultés des besoins spéciaux ni koy waxee ci <laughs> yeneen dëkk yi pour bañ leen singale euh, loolu yi dañ koy prévoir ci école yi. am aussi des écoles yoo xam ne vraiment euh, ñooy jàngal ñi nga xam ne mënuñu wax ñi nga xam ne voilà du ñu gis wala du ñu dégg benn taali bu daabu rek bi booy seet. Mm-hmm. donc loolu it dañu ci prise en charge xale yi la voilà ñuy ñuy seet suñu xale yi aussi. d'accord fan la ñu ne ak na voilà bari na li ñu dégg temps yi ci affaire ay xale ak ay bébé mais où était l'État où était l'État ministère de la femme et de l'enfance était où l'État a laissé faire mais où s'en est pas préoccupé loolu day doon parce que suñu xale yi ñooy suñu trésor en fait ñoo ñuy remplacer ji doon ay Néné Aïcha doon ay <laughs> et mais loolu État responsabilité première mooy prendre en charge ses enfants nee nañu état boo bëggee xam efficacité am da xool ca na muy toppatoo ay ndaw mais suñu ndaw yi ñoo ngi jël géej. voilà ñu naan la bébé yi voilà ñu ngi woon ci pouponnière bi ñii dee nañ ñii wéete wéete wéete l'état à ce moment donc loolu it aussi. Mm-hmm. ci li ñuy li ñuy li ñuy li ñuy li ñuy soppi lay doon. très bien un état efficace état boo xam ne bii danga xam ne yow da nga fi nekk véritablement pour servir hein pas comme ça rek euh, lip service maanaam wax rek déedéet c'est-à-dire dañuy dañuy dañuy taxaw suñu citoyens yi. lii tax nga mën koo def mooy li ma wax décentralisation ba ci quartier bi quartier bi ku fa judd dinañ xam kan la. très boo réeree danañ xam danañ laajte foo dem. Euh, ca village ba euh, ku fa feebar xam nañ ko ku fa làggi xam nañu ko euh, ku bugg formation xam nañu ko foofa la action de l'État di efficace citoyen bi mën a participer. tout répertorié parce que bu fekkee ne yépp dem na. Mhm. boo nee indi leen ku ne cent francs parce que lii la ñuy def dañu ñëw danañu sawar. mais lu ko mooy dañuy toog rek euh, di xaar. très bien alors euh, temps bi ñu joxoon jeex na on va vous laisser deux minutes donc euh, mooy deux minutes pour convaincre où vous allez faire face à cette caméra nga jàkkaarloo ak téléspectateurs yi peut-être yenn questions yu abordé wul nga abordé ko et dire pourquoi ñu war a choisir une femme pour diriger le Sénégal pourquoi vous et pas les autres. mais euh, votre caméra est là vous une une une une femme ce parce que <laughs> jigéen euh, daanaka xam nañu ne ñun rôle bi ñuy joué ci kër mooy. tëddee njaaxanaay doon yaay uuf ñëpp voilà buñ duggee ci waañ bi lu lu lu lu bool bi tuuti tuuti ñu fexe ba ku ne lekk en fait euh, réew noonu lañ koy yore en réalité mm-hmm. réew euh, ku ne da nga cee war a gis sa bopp mooy li ma wax sànq baykat bi nappkat bi artiste bi jeune bi femme bi personne age yi jotuma wax ñoom mais dama ci am programme euh, këru mag këru mag tey mag yu bëri ñu ngi ak seeni feebar dañuy bëri kersa voilà du ñu ko mën a sax euh, aborder euh, këru mag yooyu war nañ faa indi ay spécialistes gérontologie la ñu fay def feebaru mag la ñuy toppatoo mag ña mën faa dem aussi di partager seen expérience ak ak xale yi loolu am na ci solo euh, dama jàpp aussi ne fal aussi ku am expérience am na solo jàpp naa ne expérience bi am naa ko parce que yàquma fi dara aussi yow naa ne kenn mësuma toppe dara loolu dafa am solo pour pourtant def naa ci régime bi dix ans ku am principe aussi parce que defe naa ne bañ ne troisième mandat euh, borom cravate yeeg grand boubou yu góor ñi eh, ñoom ñëpp kenn ñamawu ci woon wax ne lii jaaduwul. ba finalement aussi euh, grâce au compas des sénégalais euh, ñu mu tege yoon kon jàpp naa ne am naa yéene bi déjà. am naa yéene bi euh, am na am naa compétence bi jàpp na euh, am naa éthique bi aussi yàlla dimbale na ma ci na ci ba noppi nag soxna yi aussi euh, voilà jàpp naa ne dinañ indi touche boo xam ne touche yu yërmande lay doon touche yu yaatu hmm. parce que dëkk bi aussi dafa soxla daal dal bi nga xam ne jigéen ñi ñoo koy indi ci kër yi mën nañ ko indi aussi ci état bi rawati nag fekkee ne am nañu am nañu taxawaay beeg expérience bi ak expertise bi wax ci sa bopp nag yombul <laughs> waaye nag voilà dinañu wàcc waxtaan ak Sénégal sénégalais yi. Mhm. Euh, ci ni ñu gisee réew mi. parce que mhm. mbir mi au fond. Euh, soxna ay du affaire góor wala jigéen affaire taxawaay la. c'est ça loolooy li am solo du góor wala jigéen taxawaay la. c'est important gis nañ góor gu am taxawaay waaye gis nañ jigéen ju am taxawaay Sénégal it jigéen ñi yàgg nañ fi am taxawaay. <laughs> voilà Jëmbat Mbooj Ndate Yàlla Aline Sitoé Diatta ak toutes les femmes politiciennes les Caroline Faye et cetera. Mhm. am nañ fi taxawaay boo xam ne taxawal nañ Sénégal. en tout cas merci merci d'avoir répondu à notre invitation que vous avez réussi à convaincre euh, en tout cas ñi ñu doon seetaan di la jaajëfal et puis bonne chance en tout merci cas merci beaucoup et bonne continuation à vous merci aussi. c'est gentil chers téléspectateurs on vous